situation bés bi li la altine fukki fan ak juróom benn ci mars 2020 institut Pasteur Dakar jox nañ résultat wu test yi ñu def ci test yi ñu jot benn cas moo positif Si juróom ñeenti cas yi xamante ne testé nañ bon de kenn rek moo positif